asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois ah yéen ñu ko laajoon moo tax tey ñu am contentement bu baax a baax ñëw fii si yaraax fekk si ko mu nekk un grand champion mu nekk koo xamante ni duñ ko présenté kenn mu nekk koo xamante ni dafa marqué ay empreinte am ci lamb moo tax yéen wasaare lamb mooy yi nga xamante ni yéen koy suivre ngeen laaj ko muy Moussa bu yaraax dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi mbër maa ngi lay maa ngi lay fay Fatma Fatma man lay nuyu bu baax a baax a baax di wax euh, auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sant nañu yàlla bu baax a baax a baax julli si yonentam bu tedd bi sallallaahu alayhi wa di ñaanal suñu ñaari waajur di gërëm tamit ñi nga xam ni mooy suñu di wax dëkkuwaay bi muy waaye rax di ñaanal suma sëriñ sëriñ Babacar si yal na yàlla yokk ay leeram sama waajur bu góor yàlla na yàlla yokk ay leeram sama waajur bu jigéen bi fi des nag yàlla na ko fi bàyyi yàlla bàyyi ko fi mu wéttali ma lool sax waaw mu wéttali ba si kanam yàlla mën na ko di ko wax ne joyeux anniversaire parce que comme occasion la mu nekk jour anniversaire am waaw ah ma koy wax joyeux anniversaire moom sax xam naa ni bàyyiwu si xel moo taxit dañ ko war a bett nii pour def ko souhaité ko ko di ko wax ni ko yàlla na dund cent ans yu amul benn gàllankoor yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal di nuyu autorité bi nga xam moo ne si dëkk bi muy monsieur le maire Babacar Mbengue maa ngi koy nuyu a baax a baax di nuyuwaat ki nga xam ne mooy Pape Baro maa ngi koy nuyu ak képp ku ne seen ginnaaw ñoom ñëpp Pape Baro maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Abdou Gueye nuyu Pape Sine Diop nuyu Sëñ Faye Sëñ mbay ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu présidente beeg muy Marème Gueye ak euh, Awa Diagne. ku si ne maa ngi lay nuyu si ak sa sant di wax ni vraiment waa Wassare tamit maa ngi lay baax a baax. di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom Moussa Ndoye yi am na solo parce que porteur de voix la te lii dañ koy soxla suñu maman moom it ñu koy souhaité joyeux anniversaire di ko ñaan yàlla mu dund dund dund bu fekkee lépp ci barki Seydina Mohamed ci barki Mam Babacar. mais Moussa Ndoye. duñ fi nekk naan kan mooy Moussa àdduna Sénégal waa sama parcours mooy que Moussa Ndoye mooy moom la ñuy wax l'enfant sur les rails sama parcours nag euh, yaakaar naa ni quatorze victoire am naa ko quatorze victoire trois défaites waaw am naa ko quatorze victoire trois défaites ci làmba ji garga daan na ma Falaye Baldé numéro de Mambal la waaw quatre défaites ak Malick Niang waaw mu nekk la nga xam ne tamit euh, mooy li ma wax ñi ma daan mu ñenn ñi sax fàtt ci làmb parce que mooy li ma ñun dañoo nekkoon di ci ay loxo ya nga xam ni mooy ku si mel ni suma baay suma xarit suma lépp suma confit mooy sama lépp daal muy Ngouda Sarr maa ngi koy nuyoo passage sama papa suma xarit la nuyu Aliou Sarr Souleymane Diaw Mama Saw mbër bu nekk si écurie bi yaraax maa ngi lay nuyu jël nuyoo bi teg ci loxo booy yaraax loo soddu sama doom sama rakk suma xarit ak Boy Naar jox leen nuyoo bi jël yeneen nuyoo yi ku si mel ni loo caatu yaraax maa ngi koy nuyu ku si mel ni was jàmbaar moom it maa ngi nuyu kaw bu Dalifor man ngi koy nuyu parce que bu gox bu ne rek am na ko fa yàlla teg waaw di nuyu ñoo ñëpp di wax na sama parcours loolu la waaw 14 victoires 4 défaites mhm. waaw. am solo 14 victoires 4 euh, défaites loolu moom wax dëgg yàlla am na solo mais Moussa Ndoye tey euh, bu ñu doon ñëw ci li nga xamante ne moom mooy sa enfance fan nga ko defee. lépp yarax yarax laa juddoo sama enfance yëpp yarax la waaw yarax laa jàngee école. mi école Baara Gueye yaa laa jàngee ar alxuraan yëpp fa laa lépp fii laa ko jàngee waaw. sa xale ni mu bu sa xale man sama xale nag. gars dañ ma koy léeg ñu wax ma ko am na benn tur bu may tooñee. sama xale sama enfance moo ko moo ko waral. ndax euh, bi may nekk booy. bëri moon dugg-dugg. non man bu ma sama biir feesoon rek nelaw laa doon wax sama bu feesee rek tëdd nelaw mooy son problème sama yaay sax loolu daan loolu ma daan tooñee ne ma da ngaa màgg sax man sa doon mbër sax maa jaaxal ndax danga nga màgg xaw yëngu nii mais danga daloon dal bu dal ba nga xam ne sax dafa dafa jéggi woon ndax doo doo dugg ci dara waaw dugg ci benn problème jàmbur vraiment. Moussa Ndoye euh, ñëpp xam nañ ne lébu mhm. ñoom alam lébu dañ naan ci géej gi la ñuy nekk fontoo bëre mais yow danga amoon papa buy bëre wala maam buy bëre bëre nan la ñëwee si yow. waaw mi de non dama ko fekk ci digg bi ni ko gars di waxee. ci digg ëtt bi ci digg na bëre. na magam bu daan fooyee bu daan bëre. dafa am benn maam bu gaañu yàlla na ko yàlla yërëm dafa toog di ma tàgg ni ma samaa ma bëre ba ñu may ko fasu naaru góor bu weex. Mm-hmm. ma ne ko man mun ma waaw mun bu ma gisee nit ñi naan da ko dab wala dara dara daf may jaaxal moo tax man bi ma bëree di dugg si man. tamit ku saw fay dëkk yaraax mbay saar dëkk yaraax ñu koy waxte di mbiita njaay di sa nijaay dëkk yaraax kon fay foruma ko foruma ko vraiment foruma ko parce que tëdd naa guddi nii di dégg ay tëgg may tooñ sa benn gars nankan waa mais lamb jooju duñ dem seetaan wala ma bëri mun a man mënoo bëri je me rappelle mi ngi nekk si Zos combat Zos la maanaam bu ma juum ma bi muy def yaramu neen sol tubay tëré bi dugg si stade bi di yuuxu naan nañ ma jox gars yi ma xaw ma coob coobaat leen xaw ma nan jour boobu fekk ma si laam donc duggul taxu ma nekk mbër de boobu maa ngi nekk booy nii di fo di foo naan gars yi war naa a bëri ñoom quoi di tooñ si guddi gi nag affaire bi mel nii luy ñëw ma dem nag commencé di ànd ak sumay xarit di fooy làmb samay mag yi daan bëre muy ma nijaay Ibulaay mbër la woon mbapat bu ñu teg yaraax bëri na fi moom ñoom Gris Bordeaux yëpp bokk nañ ay mbapat ma daan toog ci mbukaay kon ñooñu bi ñu demee dañ ma bàyyi ak yet bi ni ma dañ bëgg nga téye ko mais ñoom mosuñu bëri arène nag may xale bu juddoo yarax màggee yarax bëri. waaw si man la doon bàcc mbaay yarax la dëkk mooy booy yarax bu mag yarax la nekk kàdd gi ñëpp yarax la nekkoon mais ñooñu dama ñëwoon topp seen ginnaaw ak samay mag ñooñu bàyyi samay mag yor mais bi ma yoree yàlla moo ko jaarale si man tur yaraax gën a jóg mais ñooñu yëkkati woon nañ ko mais yàlla moo jaarale Moussa Ndoye gën a yëkkati tur yaraax waaw si samay loxo te ñaan naa yàlla ñeneen ñi ñëw gën ko yëkkati waaw. en général lamb bu si dugg. Hmm. papa da ngay gis day bañ mais comme que yow nee nga yow ñi naan xaalisu lamb lañ ma ngéntee sax yow dañ la cee ngénte waale ndax li nga wax moom. duñ la ci laaj. waaw man xaalisu géej lañ ma ngéntee de. dem napp jën ñëw. waa parce que sama papa man dara navigué navigateur la woon. Ah waa navigateur la woon si xaalisam boobu laa ngeen lañ ma ngénte mais làmb wax nga dëgg sama yaay musu ko bëgg sama yaay bëgg ko woon parce que dóori la doon ragal wax nga maanaam bu la gaañee fii tuur sa bët wala leen ak leneen danga mooy dañ may lor rek boobu maa ngi mbapat benn jour fi muy jaayee ma dem am si biir yarax fi ñuy dëkk koñ bi ñuy wax koñu kasanka yarax kit ma dem jël fa làmb ña doon seetaan xëy di bokk ak ñoom maire yenn maire yi xëy bokk ñoom fi muy jaayee naan ay xale bi ñu mënee bëre parce que ba li ma bind si làmb la prince yooyu xale bi naan le prince. ah le prince laa daan bëre si laa daan tudd laa bindu si làmb ma naan ñu naan oh xale boobu mën na bëri mën na fecc mën na bëri mën na fecc te bu ñëwee si kër gi mu naan dégg naa benn xale bi ñu naan la prince mhm. dafa mën a bëre dégg ma ne ah yaay mbër yooyu de. mënuñu xamul ni man la mais jour bi mu koy xam sama rakam moo. seetaan si làmba ji rakam bu jigéen buy sëy foofu moo seetaan si bi mu seetaan ñëw ne ko xale bu bëggee dara dañ koy bàyyi mu def ko mu ne ko lan la mu ne ko Moussa moo doon bëre moom mooy le prince mu ñëw wax wax wax sama papa ni ma teel sa loxo ma dékk samay loxo mu ñaanam ne ma bàyyi naa la nga bëre dinaa waxtaan ak moom sama premier combat arène mu metti trop si moom waaw diis ndax euh, yaay la ba nga xam ni yàlla na ko yàlla lafal cat ndax li tax man sama bàyyi wax na ma si moom la nga xam ne ñaan naa yàlla wax ko sama doom si sama soxna waaw si lu baax waaw parce que yaay bu dundee loolu ak njabootam tey jii bu gisoon njabootam def na ko su lu noonu tooñ moo xam ne njabootam a tooñ dina ko défendre mais bu ñu duggee toog moo ko dëgg ndax nab si doom ni mu nabee si doom ma koy ñaanal parce que vraiment bi ma demee nag ba mu xam ni lii sama bëgg-bëgg la daf ma si ñaanal. bu làmb ji tijji nii moom mooy gën a sonn sax man. musaa ndax mu lay woo ndax yaa ngi góorgóorlu ndax yaa ngi def lii ma ne ko kese waaw parce que dëkkuñu nag mu ngi këram moom mais mooy li ma wax moom du du joxe di topp man su waajur yàlla lafal na ma cat ci loolu da joxe bi ma joxe topp ñu ma si topp di xool seen doom si lu mu dugg wala lu muy génn wala lu muy def man maay toog nam ma leen seeti leen mais ñoom duñ sax ñëw sama papa bëri bëri naa ba ni ñu koy yàlla di jëlee mosul ñëw ci kër gu ma ngemboo mu musu fa teg tànk bu ñu ko waxee mus père del ñëw mu ñu leen jox di topp ña nga jox wóoluwu leen te wóolu woon nañu ma jox waaw sama avance loolu noonu la daan demee waxee mu leen def leen ci loolu ci war a def na jox yaay mu lekk rek rises na dem ñaani waaw ñaanal am na suñu ñaan ba pare na dem ñaani feneen waaw loolu daan na ko dund ak man mhm. Moussa da dugg sànq fa am solo muy mbapat yow fan nga toj ci mbapat yi ak yan bëre yoo xamante ni yan bëre yoo xamante ni bëre nga ak ñoom soit ñoo xam te ne ñi ngi lëmbe làmb wala lëmbewuñu daan ak tamit euh, dañuy gis mbapatu père Mbaye Guèye yi ñoom père Max est-ce que yooyu daan nga dem waaw mbapat yi ñëw dem naa mbapatu Fass mais man bëriwuma waaw bëriwuma si bu Tapha Tine na fa Balla Gaye na fa doon bàkku si euh, benn mbër laa mos daan mbapat mu ràññee si arène bi muy Jetli waaw Jetli waaw daan naa ko mbapat yarax la ñëw bëggoon yóbbu affaire yi mhm. gars yi yéema moom maa ngi nelaw ñu ne am na mbër mu fi ñëw de boobu ndeysaan mi ngi ànd ak benn booy bu ñëw benn ki ñuy wax maam Kor Diouf maam Kor maam Kor la waa ji tudd waa ju xaw a digg dóomu la nii Lamine Kor merci kooku la àndal kooku di yenu gaa yi teg suuf rek ay ñoom Kaaw Cissé daan naa ko mbabat waaw booba demaloon nii parce que booba dama ni ay xal lañu woon daan laale diggante dali for yarax di laale mais léegi loolu amatul deñ na parce que màgg nañ kaw seet daan naa wax mbapat mais yeneen ñi si ñi ma bëreel ñëpp non non bëriwul ñu si toj ñu ci làmba bëri dóor. man bi ma daanee dolf def naa presque 6 mois si àll bi ko daan 3 jours def 6 mois si àll bi. dolf mel. dolf dolf bi ko daanee. def naa presque 6 mois si àll bi man ak sama benn entraîneur bi ñëw Momadou Sow nii ni ñu doon def dem parce que dama ne ko nañ dem ma xool lan mooy mbapat. mbapatu dëkk neex na mais nañ génn ñu xool mbapat yi mais bi ma génnee xam naa yeneen xeetu bari yu bari bari bari bari. si lañ ko foree ñëw indi ko moo tax dama ne musaan Ndoye bëreegul ci làmb bëreegu ma sax. ndax lan. wallaahi azim li ne sama bopp bi defaguma ko. ak li nga wane fii. billaahi wallaahi wa taala am na yenn keneen xam ne dañ ko dul jël risque di ko def rek. Mhm. mais bu buñ taxoon fii di jàngale mu doon la nga xam ne école la. Mhm. man ñeme naa ni bu ñëpp sampee seen école ñun suñu écrit yi école de El Hadj Abdoulaye Diène mhm. samp teg buñ jëlul pay dinañ duñ trois premiers duñ ci génn. kon da ngaa bokk nga ci meilleur lutteur yi. waaw. dàq ma sama bopp. bokk naa si. Ah. mbër boo taxee rek man la lii la bëgg def. barki alxuraanu karim du question ndamu. mais loo doonul taalibeem doo mënoo doon sëriñam ba léegi taalibe la. dama waaw dama damay dama pratiquer parce que yàlla daf ma suturloon man nekk ak ñaa xam ni dañoo xam bëre mën bëre ku si mel ni Fallou mi ngi France mi ngi Espagne Pafal mi ngi France Ousseynou Ngom mi ngi Espagne ñoom ñëpp dama pratiquer si ñoom bëre. Aliou Sarr ñëw ni ko danduma Souleymane Diaw ñëw ni ko danduma Momadou Sow ñëw ni ko dand ku si ne ak xeetu bëri bi newoon si yow ma dajale loolu lépp tee ak li newoon si man. macha allah mbër yi bëri ñaari tànk dañ koy compter de. waaw tey ñaari tànk koy bëri bu ma neex laay teg. Hmm. duñ mën a tegal lii du mën tegal lii xool bu lu neex mbër mi xool man li ma neex laay ñëw def. ci hmm. kan combat combat damay ñëw xool tànk bi ma neex ma ñëw teg ko. mel hmm. na tànk boo mënee. bu tànk yi ma ñaar tànk bi laay bëree yàlla moo ko suturaale. du man kon ay ñoom Balla Gaye ay ñoom Modou Lo ñi ñaan ay bërekat lañ xam nga ay kii ni mais Moussa Ndoye waneegul dara non pourtant ñoom ay ndaa ay ndaanaan lañ nag liggéey nañ ba non ñoom mais est-ce que dañuy bëree ñaari tànk waaw waaw euh, c'est que waaw Balla Gaye day bëri ñaari tànk mm. day bëri ñaari tànk gis naa ko parce que gis nga mbër mi bëri ñaari tànk mooy mbër mi ngay song mu def désaxé mm. appuyé wu si pied bi nga xam ne moom la tegoon léegi nag Balla Gaye da koy bëre gis naa ko da koy bëre mm-hmm. waaw Modou Lo da koy bëre day bëri ñaari tànk mais ku si ak la mu gën a fore maa ngi koy nuyoo passage gis ci gauche am moo ëpp nag li mu gën a fore si pied pied gauche bi muy jub bi muy deg waaw mais pied droite am boo fa jaaree am na la mu fay def loolu du ma ko wax parce que affaire secret bëre la secret bëre la nit mën na fa jaar ni Moussa Ndoye waxoon ne su ma jaaree fii ah. lii lay def secret bëre la waaw moom xam na li may wax waaw bëre du lépp laa xam nag parce que daanaa dëgg son maam Mbaye Guèye daan wax naan bëre 1000 paas la heure boo xi si benn paas bi lañ toll fi ñu toll nii waaw man yàlla suturaal na ma bu dee benn paas la dama naan liir naa ko wala bu ma si liirul benn phrase wala ñaari phrase ñoo si des parce que ñun dañuy jàngal bëre mbër ni nga war a songee ñu koy jàngal boo songee ñu def la lii lii nga war a def aller retour am na si waaw yooyu yëpp day am si bëre mbër bu songee nan non mbër moom mbër mbër dañ dañu dañu daan wax ni mbër li ko li la jëmale kanam mhm. mooy mbër mi nga xam te doon du doon du doon défensif chaque jour day offensif mbër si kanam rek mbër mi song ak mbër mu dul song boo calculer bu kenn ku si ne bu amee 10 combats neel kii song am na am na 10 victoire ku dul song am na 8 wala 7 parce que tant yaa ngi song moo ëpp avantage kii song chaque jour moo ëpp avantage mais songin ba ak sa na ngay songee respecté ki ngay song tamit xam mooy kan loolu da siy baax waaw. xeex moom kenn jàngalu ko kenn xeex moom xeex la rek. day xool fi ngay door di door te kenn du la door loolu moo fi am xool ni ngay effacé ak ni ngay effacé ku ak ni ngay maytoo ak booy booy ñëw booy ñëw di nit ñi di la door nga xam ni ngay def loolu rek loolu la xeex moom yomb yomb a jàngale. gars yi moom du ma si du ma maître xeex. du ma maître boxe wala dara. mais bëri moom ñi mën a taxaw di si waxtaan ak nit daal. yow mii waaw doo maître xeex <laughs> mi ngi leen ci de mais Moussa Ndoye lutte avec frappe nga dugg ci ban année. man ma xool 2010 man 2010 ñu ne yaakaar nag Moussa Ndoye dafa teel a bëri dafa man dama dama nekk ak kii yooyu man 2010 laa dugg si làmb diggante 2000 2010 benn année bi dama si bëri combat yu bëree bëri bëri bëri man maa bëri même pas 15 jours ñun ma amaan nga combat. ma teg la fin 2000 2009. fin 2009 bi saison bi tëj. laa dugg si làmb 20 juillet boobu 31 juillet la làmb di bëree moo bëree le 29 juillet jox naa combat ba fa Balla Gaye ko bëree jour bi laa dugg si làmb. premier combat yàkkan la woon ak ñaata lañ la fay. vingt mille quarante mille. <laughs> quarante mille yàkkan la woon. mbër bu ñuy njuuma. Hmm. waaw njuuma la tudd. combat bu daan. lan secondes. Hmm. ma daw ma daw sonk. mu hmm. ma mu ma bon doole mu ma mën. si dayo quoi mais du du si bëre. ñu ne ma bu arbitre sifflé taf ko jege ko bu sànnee ko nga daw jàpp ko boo leen bëree boobu samay mag sax caalit nañ. sama nijaay dama saa ñëpp càll nañ boobu mburu laa ko bëre sëñ mburu waaw moo tëgg na sama cinq mhm. combat après ma daan ma teg la six victoire mhm. waaw dama jóge ci combat boobu daan un mois ma bëriwaat teg la ko parce que dama bëre ci août bi ma bëriwaat yaakaar naa saison bi tëj mhm. saison bi tëj rek ñu mel ne nag man la doon xar may bëri rek di di tëñëx tëñëxi boobu bu doon nii nii nii nii nii nii kon kenn waxatu ko. ndax parce que fay bi léegi la gën a baax. si sama gis-gis boobu ay 40 mille nga doon bëri. 50 mille di bëri xool imagine ku bëri 6 combats mosul fay ko 100 mille xam nga 7 combats mosoo fay ko 100 mille rond loolu ko loolu loolu loolu du combat sama combat bi gën a seer bi muy bëree laamaane bu faas la. bi gën a seer waaw laamaane bu faas su ma juumul combat bu lañ ma fay 180 mille. boobu doomu. sunu bàyyi du Ndiaye Rose bu ko tëggoon mooy Eumeu Sène Moustapha Guèye mujjul am. combat boobu la bu ñu nee la sooy combat bi yàqu parce que xaw ma affaire esaata xaw ma nan la moom la Balde daane. waaw Falaye Balde bi ànd ñoom Ama Balde. kan moo ko de. sa premier grand combat nga daan. waaw sama premier grand combat dama daan. mu doon la nga xam ne dama yaakaar àdduna doon ta doon daanu sama kaw. ndax lan ku tegle six victoire mbapat ba am six victoire mosoo daanu. mbapat ba six victoire mosoo daanu ñëw sa premier grand combat nga bëri bëri bi yëpp daanu ñëpp di la tàccu. lan nga ñëw mën nañu ñëwaat ci combat bi fan laay Baldé boobu waaw arbitre ma dox si wàcc rek dox si kaw. Mhm. sànni ay rafal gauche droite ma ne ko du ma la may dara daw tànc ko rek. mu génn saako yi ñu dawaat ñëw maa ngi rappelé wu ñu daw ma daw jël ko daw dóor ko caxabal wàcc wàcc ay tànkam pour pour sulli ko mu écarté génn saako yi ba léegi at bit ñu mënu ko jox avertissement mm-hmm. gars yi commencé wu waaye commencé di wax ak at bit kii na bëre kii na bëre booba di koy xalaat dal na ma ma daw ñëw rek jàppat ko bi ma ko jàppee mu jàpp ma taxaw ni damay jéem a dóor mu caxabal ma wéeru sama kaw parce que boo ma ëpp relance daw wéeru sama kaw ma daanu bi ma jógee gars yi tàccu may tàccu di ree mais bi ma ñibbisee si guddi gi dama yaakaar ni àdduna doon wàcc ndax dama ni man est que gëmoon naa dinaa daanu waaw gëwuma ko woon mais après nag ci la vision ma am ay kilifa yu mat kilifa vraiment Ngouda Sarr looloo tax mun ma man mun ma fàtte Ngouda si àdduna Ngouda moment difficile la mën a gën a jege sax Moussa Ndoye moment yi naan difficile ak yéeg li si la gën a mën a jege Moussa Ndoye ndax boobu bi ma daanoo dafa ànd ak man ne ma kaay nekk ak man nekk ak man parce que ba deux heures du matin loolu sant yàlla la te bi ma si jógee dañ ci waxtaan ma daan ma daanu le premier le vingt huit janvier le vingt huit février ma bëriwaat si laa daan 28 février xam naa si laa bëri Tyson 3 xaw ma si laa bëri Tyson 3 mm-hmm. bëri Tyson 3 daan ko bëriwaat ak bëri naa Amadou Camara ay ay ay Eumeu Sène ñëpp daan naa leen mm-hmm. Eumeu Sène Senior daan Amadou Camara bi ma paree Tyson 3 laa si bëreel Dolph mm-hmm. Dolph suñu combat une minute la am. une minute la combat bi am. ma jóge foofu nag gars yi dugal ma ci calaf.